Euh, yaakaar naa ni nag actualité bi jamono ji du lenn lu dul euh, politique bi parce que nag on est à deux mois des élections présidentielles 2024 euh, ñu waxtaanee li nga xamante ni rek moom mooy actualité politique tey nat ma ñëw fi nga xamante ni moom Maris seet si fi nag koo xam ne ràññee nañ ko loolu gëm-gëm ak détermination bi nga xam ne am na ko ci Ousmane Sonko muy tonton Mayabé mbay di coordonnateur national Maggi Pastef tey nag moom laa seet si fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne rek moom moo ñeel actualité bi sans détour comme ni koy defee euh, à chaque fois duñ koy daal di nuyu rek ziar ko dalal ko jàmm ci bi Equivox balaa ñoo xuus tonton ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar di la dalal jàmm ci bi Equivox TV. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu téléspectateurs yëpp fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan bu yaatu di wax ni daal liñ ciy wax lépp yàlla na doon luy jëriñ askan wi. yàlla doon lépp doon dëgg te du jëriñ askan bi incha allah. Euh, yàlla doon loo xamante ni day euh, jëriñ askan bi ñu ñëw rek ci li nga xam ne moom mooy actualité bi yaakaar naa ni li nga xamante ni moom mooy décision bu CEDEAO ak cour suprême est-ce que c'était prévisible décision bi nga xamante ni CEDEAO jël na ko euh, ak cour suprême ci lu ñeel bokkul Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi. bon commentaire décision CEDEAO tu sais la CEDEAO C'est une décision, c'est même pas l'appel du, du, du, du Ce qui nous intéressait surtout, c'est le verdict de, de vendredi passé qu'on attendait. Vraiment, situation bi ni mu demee ak ku fekk woon nekkoon ci biir tribunal bi ce jour-là plaidoyer yi ni mu demee les avocats de l'État qui n'avaient aucun argument sinon qui voulaient faire un autre procès parce que argument boobu la ñu am si ce keneen koo xam ne dafay taxaw di xas ak di saaga Ousmane Sonko. Mais les avocats d'Ousmane Sonko ont démontré toutes les choses. Même l'avocat général les a suivis en demandant à ce que nous confirmions l'affaire-là. Bon, paraît-il que même dans, le, dans la discussion pour sortir le verdict, il paraît que am na kenn ci magistrat yi ku gedd bof waaw wax nañ ko mais quoi qu'il puisse euh, advenir mais li wóor bu wóor mooy on ne s'y attendait pas donc ñoom tamit c'est des juges d'accord naa li ñu wax am mais man selon moi, devaient prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités consistait à confirmer ou à infirmer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout juste donné un verdict qui nous retarde. boo xam ni le temps ñu koy yóbbu renvoyé à la kii mooy tribunal de grande instance de Dakar ce qui nous prendra encore à quinze jours ce qui nous retardera c'est pourquoi ñun tamit le lendemain on s'est réunis ñu toog waxtaan on a sorti une stratégie qui qui fait faux au Sénégal en ce moment Bassirou Diomaye waaw muy la la carte Bassirou Diomaye fay parce que euh, normalement su fekkoon le verdict nous était favorable lundi bu nu jotee la fiche de Ousmane Sonko mardi dañuy lancé parrainage bi mais comme xam nañ ni verdict bi daf ñuy tardel donc euh, te on n'a plus de temps il fallait récupérer les parrainages pour récupérer les parrainages il fallait mais les mettre quelque part bon ci biir waxtaan ci kii ci biir waxtaan kilifa yi waxtaan seen biir Ousmane avec les cinq yu mu désigné woon ñoom ñu désigné ñu nañ ko def pour le compte de kii euh, Bassirou Diomaye fay waaw léegi nag ñu ñuy ayca kon ñu ko lancé la campagne une campagne qui marche excellemment bien macha allah kii d'ailleurs te am na ñu ñuy wax ni euh, fii mu ne référendum la bu wane ni vraiment si c'était des élections le le Pastef allait passer au premier tour donc looloo indi ñu jël récupérer les. le parrainage populaire def ko sur le compte de Bassirou Diomaye Faye. en 24 heures ñu ne récolté ngeen lu toll ak 1 million wala plus de parrainage. bon écoutez mënuma ko affirmer mënuma ko infirmer parce que euh, on est en train de collecter li ñu gën a soucié wu mooy euh, vérifier classifier ordonner mettre en place et tout mais le nombre am na ñu ko xam ñu koy wax mais mën na sa dépasser lool mais pour le moment ce qui important. c'est l'engouement gérer l'engouement fexe ba mu am frustration ba ku bëgg parrainer parrainer mais je crois que on atteindra facilement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine les 3 millions 500 de parrainage Euh, son les informations aussi gis nañ euh, choix bu Bassirou euh, Diomaye fay tax na benn coordinateur bu nekk bitim réew bu bokkoon ci Pastef daal dinay démissionné ndax nee na d'accordul ci choix bu jàpp Bassirou Diomaye Faye ndaxte mënuñu candidaté koo xamante ni mu ngi ci prison bi et lu ñuy toppee Ousmane Sonko les huit chefs d'inculpation moom lañ koy toppee loolu nga ci wax bon officiellement de ça Parce qu'au niveau de notre politique, on n'en a pas parlé. Donc officiellement, je ne suis pas au courant. Si ce n'est pas une rumeur. Et si c'est le cas, c'est avéré, le gars il s'est trompé, il s'est complètement trompé. J'ai bien dit, il fallait récupérer le parrainage populaire. bu ñu koy récupérer il fallait ñu am fu ñu ko verser techniquement benn nit lañ ko mënoon reverser le choix était porté sur Bassirou Diomaye Faye ce n'est pas pour autant que Bassirou Diomaye Faye est le candidat de PASTEF. Bassirou n'est pas le candidat de PASTEF. PASTEF n'a qu'un seul candidat bu ñu teg bu ñu investir c'est Ousmane Sonko jusqu'à aujourd'hui Ousmane Sonko est le candidat de PASTEF. Bassirou jommay Faye pour toute éventualité. raison bi tax ñu yónni ko mu dem jëli fiche de parrainage yónni Abbas yónni El Malick yónni Guy Marius Sagna yónni euh, euh, biram Souleye mooy wane ni éventuellement stratégie la boo xam ñu ngi ko teg dans la mise en œuvre de cette stratégie ñu ngi toll ci récupérer parrainage yi si on n'avait pas envoyé ces cinq la aujourd'hui le parrainage populaire peut-être qu'on l'aura perdu pour ne pas le perdre on le verse sur le compte de Bassirou Diomaye Faye mais en le versant sur Bassirou Diomaye Faye on va le préparer et le mettre à, à, à vos ci ligne de départ bi il peut être candidat si éventuellement c'était nécessaire et je ne crois même pas que ce sera nécessaire parce que Ousmane sera notre candidat il sera validé mais pour le moment on mettra tout ce qu'il faut pour le mettre au point de départ si éventuellement il devrait euh, euh, pouvoir être candidat il le sera y a, ça pose aucun problème mais ce par les députés par les élus ko Donc, chaque chacun de ces cinq peut être candidat. Mais ôtez-vous dans la tête que pour le moment, Bassirou Diomaye Faye est chargé dans son compte de récupérer le parrainage populaire. Nous, nous sommes chargés ba mu baax teg ko sur la ligne de départ. Pour que éventuellement, bu ko soxla amoon ñu soxla ko du soxla du jogaat di débat di dellusi parrainage. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est le candidat. Donc si ce coordinateur, un haut responsable xamewu ko noonu laajtewu ko mu jékki-jékki ni day démissionné dafa jum juum deuxièmement élément yi nga joxe parce que ci li nga joxe laa joxe parce que li nga wax man xaw ma dara honnêtement mais dama la bëgg xamal benn mbir Bassirou Diomaye nekk n'a jamais été condamné Bassirou Diomaye Faye est présumé innocent inculpation yi bari na instruction xaju fi jugement xaju fi il est impossible de le condamner avec les élections présidentielles qu'est-ce qui empêche Bassirou Diomaye Faye au besoin d'être candidat ci li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom mooy seen euh, candidat A ba Z mais selon aussi les mêmes informations ñu ngi dégg ay ay ay ay ay bruit ci suuf ñu ngi naan bu ñu sukkandikoo ci article L57 bi suñu code électoral tere na Bassirou Diomaye fay bokk ci li nga xamante ni moom mooy élection euh, présidentielle parce que moom ci parti bi nga xamante ni moom la ñu dissoudre muy pas euh, Pastef ci la bokk te euh, pour nga nekk candidat fa parti bi nga xamante ni dañ koo dissoudre am un an nga sooga a a nekk candidat indépendant loolu nga ñu ci wax. les gens interprètent. parce que gars ñu ngi wax naan parrainage yi nga xamante ni ñu ngi koy def per de temps la. les gens interprètent mal cet si li nga wax noonu c'était avéré pourquoi ñuy sonn kon Ousmane ne pourrait même pas être candidat Ousmane Sonko il fait partie du parti dissous. mais gis nañu Pastef depuis 2019 dañuy dem sans récépissé. ah non justement l'article dafa wax lu leer c'est-à-dire que de tous les éléments qui étaient à Pastef kenn mënu ci am une candidature individuelle. xam nga il est permis à Mayabé d'aller chercher une candidature individuelle de se présenter mais comme Mayabé était du parti PASTEF qui est dissous Mayabé ne peut pas être un candidat individuel l'article 57 daf ko daf ko dàq mais il peut être investir par un parti politique légalement constitué ou par un groupe de parti par une coalition ça n'a absolument rien à donc non non non c'est de l'autre côté ñoom ñooy indi confusion la la chose est très claire tous les juristes en ont parlé l'expert fiscal si la bërki dem rek wax na ko mu leer nañ donc rien n'empêche Bassirou Diomaye Faye biram Souleye Abbas Fall euh, El Malick Ndiaye et Guy Marius Sagna voire Ousmane Sonko d'être candidat investi par une coalition par un groupe de partis ou un parti politique mais ils peuvent pas être des, des candidats individuels ça c'est certes ouais. ban ban coalition ñoom ñoo koy ñooy ànd ak la coalition ñu ngi koy préparer mais ñoom bi ñuy dem di jëli fiche dans les papiers qu'ils ont déposés chacun d'eux a été investi par un parti politique légalement constitué chacun de ces cinq a été investi hein, par un parti politique légalement constitué. mais tamit euh, euh, kii parce que amul ci ñu du cuune on a yëpp xamoon nañu ko tout était prévu. mais ñu ngi naan euh, euh, maanaam Bassirou Diomaye Faye c'est juste un jeu mais ba tey yéen waxagoo leen seen candidat. mais yéen attendez man je ne sais pas Sénégal ndax dañu amul lu noppaloo sunu candidat Ousmane Sonko la. Ousmane euh, bu ñu sukkandikoo ci maanaam comme ni nga ko waxee balaa Cour suprême di statuer wu pour yóbbu. dina jël temps dégg nañ aussi keroog Mame Mbaye li nga xamante ni wax na ko nee na même bu génnee ci mbir moom itam am na li nga xamante ni moom moo ñeel digganteem te le 23 lañ ko war a lañ ko war a lañ war a édifier itam loolu est-ce que boobu tamit du doon. ci daal waxu Mame Mbaye Niang amul benn valeur amul benn valeur Mame Mbaye Niang moo fi ni woon day démissionner parce que dafa bëgg seetal boppam pour lan. bu bu ñu indee produit la. xaaral xaaral Mame Mbaye Niang moo ne woon damay démissionné parce que dama bëgg setal sama bopp dafa doon setal boppam ci lan Mame Mbaye Niang moo ni lii ma dal yëpp Amadou Ba moo ma ko teg c'est Amadou Ba qui cherche à me mettre à terre ci ban fay aujourd'hui on dit que Mame Mame Mbaye Niang a été épinglé Mame Mbaye Niang indi coow naan dañ ma diffamé indi fi ay problème yu kenn xamul. Dans cette affaire Mambaïnian, je le répète encore ici, un éminent avocat a dit et clairement, les textes disent qu'il faudrait que nous condamnions à plus de six mois pour nous empêcher d'être candidat, pour nous perdre ses droits civiques. Il a été condamné à toujours six mois, Falayam. Plus de six mois, ce par pas six mois. Cette affaire-là, on n'en parle même plus. Non, on suivra l'affaire. de Ousmane Sonko, on ira dans les juridictions qu'il faut, on marchera du matin au soir jusqu'à la veille du dépôt. Si on nous libère la veille du dépôt à minuit, le lendemain à 8 heures, on serait dans les dispositions pour déposer la candidature de Ousmane Sonko. Ça nous pose aucun problème. pourquoi pas Bassirou Diomaye Faye pourquoi pas euh, Birame Souleye pourquoi pas Guy Marius Sagna ou El Malick foofu noonu après euh, par la suite bu fekkee li nga wax nii yëpp Ousmane Sonko maanaam euh, demut est-ce que boobaa du xaw a indi tout problème bi. aucune cacophonie d'abord on dit si si si sa même condition boobu bëgguma ko mais comme vous voulez qu'on parle ñun dañu gëm ni Ousmane sera candidat bu Ousmane nekkul candidat waaw d' accord d' kooku nag ñun ñooy toog suñu biir di ko waxtaanee mais comme da ngeen bëgg ñu wax ci ma waxal la ci kon da nga bëgg ñu wax ci bu jotee te loolu war a am ñi war a toog toog ñi war a décider yu wax ñi war a war a wax de cinq la on choisira un ou deux ou trois et comme candidat oui. la candidature de Guy Marius mais c' est la même chose c' est au même point. Euh, aujourd'hui on prend on Ce n'est pas pour autant que Bassirou Diomaye Faye est devant Guy Sagna. Ce n'est pas pour autant qu'il est devant Brahim Souley et que ce soit. Ils sont tous au même pied d'égalité. Si besoin était, dañuy toog ñu toog réfléchir xool kan la. Mais ce choix-là, je vous ai dit que le lundi, le, le samedi, il a été décidé par les instances du parti qu'il fallait récupérer ce parrainage populaire bañ mu yàqu mënoon na ko déverser sur trois personnes on pouvait envoyer trois personnes on pouvait envoyer deux personnes mais ñu ñoo xool ni avec ce temps court et tout état de chose on peut mettre que devant une personne pour ne pas créer de cacophonie ñu jël la chose renvoyer ko ci kilifa gi mu toog waxtaan ak juróom yooyu la décision est venue de Ousmane Sonko Birame Souleye ba Bassirou Diomaye fay euh, Abbas Fall et El Malick Ndiaye ñoo toog waxtaan Abbas barki dem dans une télévision at dit ñun ñëpp ñu ngi ci biti moom mi ngi ci biir pour lui montrer que fàttewuñ ko pour lui montrer que dañ koy jox dara jàmm nañ ko reverser dans son compte pour rek mu am yëg-yëg ni kenn fàttewu ma ñoom ñoo jël décision bi mais bu décision bale jotee ce sera la même chose ñu décider ko fa fan ko war a décider mais ce n'est même pas parce que Ousmane sera candidat moom lañu jàpp te mooy am lu koy tere il n'est condamné à rien la contumace tëb na condamnation ba mënu ko bloqué on va nous faire valser euh, tribunal de grande instance de Dakar et consort on ira à un résultat positif ce résultat positif ñu jox nu ko la veille le lendemain présentera sa candidature te bu ñu présenter sa candidature ndegam suqam moo ñëw bàkk ko làmb ji tas Ousmane Sonko bu duggee ci làmb ji kon je ne sais pas xam muy mel voilà. Bassirou Diomaye tey ban euh, ban ban danger la mën a am euh, ci ban danger la mën a am ci langue politique bi rawatina adversaire am bi di Amadou Ba sono li nga xamante ni noonu la ñuy collecté parrainage parce que ñu bëri ñu ngi naan euh, maanaam Bassirou Diomaye fay jamono ji danger la ci Amadou Ba. non attendez Bassirou Diomaye Faye ils récupèrent nos parrainages danger la ci Amadou Ba non Amadou Ba waa Partem ñoo nekk danger ci moom tey rek gis naa benn vidéo buy circuler où une dame nommée la tigresse xaw quelque chose comme ça qui dit que rien sauf Amadou Ba donc avant ñuy xalaat ah Bassirou Diomaye Faye wala kenn nekk danger sur moom waa Partem ñoo nekk danger ci moom peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur le choix du président ensuite comme je comme j'avais dit. Euh, sa communication ni mu ko ni mu communiquer en prenant une continuation c'est c'est pas bon c'est pas bon parce que non attendez aujourd'hui tout le monde le sait et c'est clair que 85 pour cent 90 pour cent des Sénégalais ont rejeté euh, euh, Macky Sall et ses et, et ils sont pas d'accord ils sont pas du tout ñu ngi bëgg a dee courant baa ngi leen di bëgg ndox baa ngi di rey le chômage xale yi dugg ci géej gi tout toute la chose on est à terre yow nga ñëw nii dama koy continuer c'est pour nous tuer non man à sa place je ne pas comme ça je di dit avec toute sa fidélité je le connais nag c'est un type extraordinaire ah Amadou Ba je le c'est un type extraordinaire en kenn gënu ci àdduna jub na baax na yor nag euh, dans cette affaire là d'accord ma ak moom il aurait dit ànd naag am euh, ànd naag Macky Sall liggéey nag moom j'assume tout am na lu ci baax dinaa ko consolider defaraat ko am na lu yemamaay dinaa ko redresser ba mu baax taf ko fale boole ak li baax yokk am na loo xam nag safaan la dinaa ci rey sama tànk tubay ba defaraat ko ba mu baax pour que Sénégal jëm kanam Sénégal yi seen coono wàññeeku mais ñëw ni damay kon la euh, Macky doon def du dem bon déjà loolu rek ça pose un très grand problème ensuite Moi, je ne comprends pas l'attitude de Macky En ce moment où Amadou Ba waroon génn Fess nekk au premier plan mu ñëw couver ko. on mu ñëw couver ko complètement dégg naa Demba xaw ma dem la ko soogay libéré pour que Amadou Ba puisse partir c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard et pour preuve. quand lecture nga am ci loolu Macky nga xamante ni moom la porté affaire bi ba ci tournée économique bi moom da ngay gis muy wax. avec tout le respect pour mon président Macky temps yi moom il est trop mal concentré temps yi nag moom il est vraiment trop mal concentré su nekkul xuloo kii xuloo mi ngi dugg ci ay détails yu kenn xamul bon gis naa ko dem mu wax pour la première fois il il mu évoqué un deuxième tour ok mais li wóor bu wóor quand Macky Sall un président de la République yor suñu réew pendant douze ans nga toog di wax ni kenn mënul tabax stade pendant euh, depuis pendant dix ans ce qui dit que lui étant président il day xaar ba mu desee ko trois mois mu soogay rendre compte ci loolu ak tout détail beaucoup de choses beaucoup de détails ensuite il faudrait que que les suñu problème ak Macky Sall c'est très clair Macky en 2011 nous disait man ay tabax stade ay tabaxi tali ay tabax loolu taxuma jóg man ce que je veux mooy un état de droit ce que je veux c'est une gouvernance sobre et vertueuse ce que je veux mooy dëkk bu jub ñëpp jubal ba tax ma teg OFNAC je ne protégerai personne ce que je veux mooy affaire u parparloo comme li Ablaye Wade li ñu jiñoo Ablaye Wade dévolution monarchique je ne nommerai aucun frère de sang par décret mais ñëpp ni gongo mais tey au tournant on est à, à, à, au bilan on ne parle plus d'état de, de droit on parle de gouvernance vertueuse on parle plus d'OFNAC d'ailleurs les rapports sont dans son bureau mu teg ci kuddam on parle du rien du tout yow nga digg ma lu ne ma jonkan toog di ko xaar lan ma diggoon gisuma ci dara nga naan ma defar naa ay pont kon la nga wàcc woon moom la saxaat man pont taxumaa jóg tey ay pont lay tiitaroo Et puis, entre nous, quand Macky Sall va jusqu'à dire, je dis bon président est mal concentré. Quand il dit, bien, on fait une ay kamba la fi doon fekk léegi tali yaa ngi rataax autour de péage mais il oublie que ni euh, trois quarts bilan boobu euh, c'est sous sa responsabilité en tant que ministre en tant que premier ministre en tant que président de l'Assemblée nationale donc kamba yi ñoom ñoo ko fi defoon ce n'est pas parce que fàttal nañu juróomi kamba juróom benn kamba qu'il aura fait un excellent bilan moi j'ai toujours dit su ma doon qualifier les quatre présidents je mettrai Macky Sall derrière. gisee euh, maanaam ci kaw Ousmane Sonko pour la première fois pronon prononcé wu na ci li mu wax c'est clair nee na wu ci euh, lenn force restera à la loi. vous attendez à autre vous attendez à ce qu'il avoue devant tout le monde que. je euh, maanaam sortie mi day wax comme ci que il est il il est fâché. à un point de non-retour. Vous vous attendez à ce qu'ils disent ah je regrette vraiment ce qui est arrivé à Ousmane Sonko tout va être régularisé non non nii la mën a waxee je ne regrette rien force restera à la loi mooy seen slogan ñun force restera au peuple force restera à quelle loi à une loi où tout juge loola neex def la neex wax ah même un juge bu toog war a juger ñu et ñu ni euh, war na juger juger na jaaral na ko yoon. il a lu droit mais ñu jël jugement bi sànni ci àll ba pourquoi parce que ça n'arrange pas euh, le grand monsieur euh, euh, donc force reste à cette loi la force restera au peuple te incha allah moom pexem la am ñoom seeni pexe la am yàlla am pexem incha allah rabbi ñun yàlla lañu gëm yàlla lañu teg mbir mi ci loxoom moom kese moo nu mën a tee nekk candidat Ousmane Sonko sera candidat et sera président de la République incha allah. li ngeen li ngeen di wax nii yaakaar naa ni depuis euh, plus de six mois un an benn discours bi ngeen am te presque on est à deux mois des élections est-ce que aussi tamit jotul ngeen wax sénégalais yi tamit lu leer ci seen bopp yi aussi tam. pourquoi leerul seen bopp. bien may ma une minute ma ne Ousmane Sonko moom la Pastef investir. jaarale ko fi mu ko war a jaarale ak nu mu compliqué commencé par les sections communales di dem ba yegg si balaa haute autorité validé ko lu tax ñu ni Ousmane mooy sunu candidat mais tu ñun man mii nii ma mel nii ak li ma ciy sonn nii si j'étais convaincu que Ousmane ne peut pas être candidat dinaa ci sonn nii mais pour ne pas être candidat du nit mooy décider ni kii du nekk candidat ak ay pexem même bu amee euh, justice bu ko jàppale. yan bon bien une charge de attendez attendez une charge ne peut pas empêcher un citoyen d'être candidat une condamnation moo mën a tee nit nekk candidat et les condamnations il y en a il deux les condamnations il y en avait deux benn bi c'est la condamnation sur l'affaire Mame Mbaye Niang il fallait condamner à plus de six mois ils ont condamné à six mois ça suffit pas mënu ko tee ne candidat ils se sont trompés yàlla moo fel seen gémmiñ yàlla na ëpp doole la deuxième condamnation c'est la contumace bañ ko jàppee la tëb ba mu bindee lettre la tëb contumace bi sànneeku ne amatul fenn quel est le problème ba tey ñoom nanguwuñu eh, étape boobu parce que jàpp nañ ni c'est pas du yooyu lañu jàppe Ousmane Sonko yaakaar naa ni ministre de la justice Ismaïla Madior Fall bi fi nekkoon yaakaar naa indi na ay argument ci lu mel noonu parce que nee na képp koo xamante ne dañ la jugé par contumace rek mënatoo nekk candidat Ismaïla Madior Fall tu sais euh, comme disait l'autre là euh, l'avocat Ismaïla Madior Fall c'est donc constitutionnaliste gis nga xam nga li ma la bëgg xamal boo demee dans un le mécanicien est là le tôlier est là le l'électricien est là-bas nga mécanicien bi bu jàppee tôlerie def ci lu ñu warul def tôlier bi boo paanee polier bi ñëw daf lay dépanner mënu la dépanner Ismaïla Madior Fall il il n'a sant s'en tenir à sa constitution loolu la mën en affaire pénale comme disait l'autre mënu ci wax kenn dara parce que xamu ci dara il raconte des histoires ñu ko ëpp xam-xam ci loolu wax nañu du benn du ñaar fii ci réew mi ak bitim réew la condamnation par contumace maa ngi koy waxaat mu leer ci biir nit ñi condamnation par contumace mooy koo xam ni ba ñu lay àtte ñëwuloo xamuñu foo ne ñu àtte teg ni dogal nañu dogal bi ci ginnaawam yoon ni bu ñu ko jàppee loolu dañ na bu jébbalee boppam loolu dañ na bu ñu ko jàppee boobu nag mooy problème waxul buñ ko jàppee ci lii wala buñ ko jàppee ci lii wala ko jàppee ci affaire bi buñ doon def contrôle régulier police sax ci guddi gi ramasse ko mu fàtte carte d'identité ñu jàpp ko yóbbu ko à la police contumace dafay tëb ñoom xam nañ ni mënuñu ci agrippé wu c'est fini maintenant il vont nous retarder si dugal nañ ko ci liste bi dindi nañ ko ci liste bi il n'avait il n'avait même pas le droit de le sortir de la liste voilà ordonnance am na pour ñu defar ko ci liste bi ils ont cassé ce jugement ils nous ont renvoyé au tribunal grande instance de Dakar mais nous les suivrons tous les jours on ne se découragera pas parce que nag am na benn juge bu gëm yàlla bu toog bu respecte justice bu am res boo xam ni yàlla mën na ko jox dossier bi te bu ko joxee mu tranché la vérité te bu boobaa lépp leer gëm nañ ko ñun ñoo ànd ak dëgg ñu ngi ci kaw dëgg te yàlla dëgg la bëgg dëgg rek kay mucc Macky Sall nag bu ne il ne regrette rien ensuite s'il na regrette c'est parce que c'est lui qui l'a fait si je comprends bien quand il va jusqu'à dire je ne regrette rien donc c'est lui qui a fait moi je pensais que defuloon dara lu muy regretter kon mais si kaaw Ousmane Sonko lu mu am lu mu ciy regret lu ci yoonam comme ne non bu fekkee defu ci dara non non non attendez euh, xam nga euh, pa passons à l'expression je ne regrette rien quand mois je di je ne regrette rien c'est parce que j'ai fait quelque chose su deful dara yoonam newu ci justice ay dox doxam force reste à la loi comme il dit luñ ciy regretter ñu ñàkk regretter Il dit, je ne commente même pas. La justice n'a qu'à faire son travail. Mais je ne regrette rien. C'est parce qu'il a peut-être qu'il quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. ñu traité euh, Bassirou de salafiste gis nañ gars yi nga xamante ne ñoo nekk ci parti au pouvoir ñu ngi commencé di indi ne c'est un salafiste loolu lan nga ci mën a connaître. ça te surprend nous nous savions depuis dimanche bi ñu choisir Bassirou Diomaye Faye nous savions que ni dès lundi rek les flèches vont tomber dama je le citerai pas son nom parce que dinaa ko rus parce que lu bon bon am na lu nu mas a seq ma ak moom quand il dit que c'est un salafiste mosul dem Touba mosul dem Tiwaawoon du dem Tiwaawoon xale yi génn vaar ko teg c'est que mag dafay am res mag day am lu mu bañ alalu àddina jarul lenn xam nga senegal lu ko yàq xale yi seen découragement du ñàkk liggéey kese mais jànnaxe daf ci bokk dañu ñàkk liggéey ba pare jànnaxe xam nga bu fekkoon ne xale yi amuñu liggéey euh, am dese tuuti espoir ba pare ay mag di toog di waxanteek ñoom di leen gingi xale yi dinañ comprendre mais bu xale yi toogee amuñu liggéey jànnexe njàqare ba pare di gis ay magum jëm borom sikk muy weex di toog ci tribune assemblée nationale wala ci télévision yi di wax lu dul dëgg xam ni ñoom li ñuy wax du dëgg ñi ñuy toogal xam ne li ñuy wax du dëgg ñu leen di déglu xam li li ñuy wax du dëgg rusuñu ci jabar rusuñu ci doom rusuñu ci nawle seetuñu ci yàlla mais xale bi day jékki-jékki ni fii tasaaroo na lu ma fiy defati dem dugg ci biir géej gi sax ko comme toog naa fii dee naa ba pare te aw ma benn grand espoir dem seeti fee ndax mën naa dee wala mën naa dund donc il faudrait que mu am retenu fii yàlla moo fi ne alalu àddina jarul lenn yi jàpp Bassirou may ba jar Bassirou Diomaye Faye salafiste la quel problème moo ci am il est président de la République il s'occupe de euh, de la République en quoi cela gêne qui que ce soit ce n'est pas parce qu'il est salafiste que bu ñu ko joxee réew mi il va transformer notre notre notre notre pays en en pays de salafiste il peut pas il n'a même pas les compétences donc am na yoo xam ne ay wax yu ñàkk fayda nañ ko bàyyi teg ko fale su fekkee ñoom. Bassirou Diomaye Faye rek a génn pour récupérer ay parrainage ñu afale def nii di waxe nii mais bu Ousmane Sonko génnee fu ñu jëm te nañu toog nag xaar de waa jaa ngi ñëw de. ah oui mi ngi ñëw de il est en très grande forme il est. il changé stratégie am selon bu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna ba mu ko seetee wax na ci Ousmane Sonko mu ngi ci jàmm mi ngi comme d'habitude ci ay kafam ay ree mi ngi entraîné ci mais maanaam mi ngi changé na stratégie en fait. de de de de de de de lutte. non non changé wul stratégie de lutte. grève de la faim na fi ba sonn kenn waxut ba na ko ah mais. grève de la faim ñaar la benn bi moom moo ko def institut personnel bi mu ko defee mu dem ba mu tàng ba metti ñoom ñu afale ba jaaxle sëñ bi ñaan ko mu dellu gannaaw mu arrêté deuxième bi ay jigéen ñoo xam. dañ ko soutenir ba dem dugg kaso defuñu dara lu dul bëgg Ousmane Sonko soutenir ko ñu solo leen ci kaso ban def grève de la faim pendant dix jours kenn dégluwu leen kenn faalewu mu ñëw en soutien pour les soutenir te ba mu ci duggee coow li takkarnaase mu tey changé na en un certain moment les choses sont entrées dans l'ordre mu bàyyi ko il a repris ses activités il est la il prépare sa sa propre sortie dimanche dimanche on dit que Sonko va parler Sénégal yëpp taxawul làmb ji yàqu football ba yàqu ñëpp kenn nooyeetul de de de de heures à 20 Sénégal <laughs> kenn nooyeetul koo gis mi ngi tey portable waa affaire bi kañ leen. waa waaw léegi gis nga gis nga gis nga problème bi waaw yàlla mooy dogal yàlla moo dogal jël Ousmane Sonko dugal ko ci xolu doomu aadama yi. yemul ci ni euh, dafa boo dafa baax kàllaam dafa neex day gone gu am xam-xam bëgg réewam engage wu politiquement indi un programme ànd ak ñu jub ñu baax ñu bëgg réew mi di laaj réew mi pour defar ko yàlla may ko xekma boo xam ni kàllaama boo xam ne bu waxee mu dugg ci xolu nit ñi quatre-vingt pour cent de personne te gis nga euh, je te jure coow li bari na de mais yàlla mi ma tim xam na ni da nga gis ponkalum APR buy toog télévision di wax bay fëgg dënnam bu wéeteeg yow danaan la mayaa mun waa mun ma billaahi sawaay ndaanal la man si biir APR ay kilifa suñ toogee ñu la ma mayaa be sawaay ndaanal la yàlla ko yàlla jàppale ma daf ko sañul wax parce que bu ko waxee ñu exterminer ko da ko dul sañ wax officiellement mais ñoom xam nañ que ils reconnaissent nag sax xam nañ ko kan moo gën a xam Ousmane Sonko Amadou Ba kan moo gën a xam Ousmane Sonko Ablaye Daouda Diallo kan moo gën a xam Ousmane Sonko diw ak diw ak ñoom xam nañ ko bu baax baax boobu politique amul boobu on était tous à la direction générale des impôts et domaines xam nañ jubam xam na ni dévouement am xam na nu bëgg liggéeyam xam na nu mën liggéeyam xam na ni léppam te loolu changé wul tey la wàllu gënaay donc il n'y a aucun problème li wër boo wër mooy Bassirou jëli na parrainage yi on n'a pas regretté la choix parce qu'il a euh, ça très bien réussi les gens ont ont accepté ça se passe très bien et j'espère que d'ici la fin de la semaine prochaine on aura nos 3 millions 500 voire de parrains waaw ñu teg ko seet li ci war a seet en attendant xool le développement de